nek liguey bo xam dafa wara mengo créer ay emplois aussi hein, et puis soutenir le développement économique du du Sénégal donc ci loolu lañ nek té tay il fallait ñu ñëw fi tamit euh, ci cérémonie décoration profité wu wax ak travailleurs yi encouragé leen ñaax leen wax leen aussi taxawayu gouvernement bi taxawayu état bi euh wax leen tamit euh, ñoom ni ñu wara mëna taxawé seen biir waye ni ñu wara mëna taxawé aussi ci seen digënté ak seen yeneen nantango yi nek ci yeneen entreprise yi muy ay CFS di wax aussi chemin de fer bi yëpp tey jii benn bopp rek la te loolu moo leen mën sauver loolu moo leen mën sauver loolu mooy mën tax tamit euh, président de la république mun leen dimbale mun leen jàppale waaye jàppale waale tamit euh, Sénégal te chemin de fer am na solo ci réew mi bon boog loolu euh, travailleurs yi dañ ci a taxaw dañ ci war a jàpp bu wala bépp xuloo bépp xex ci bir euh, ak bépp revendication tey jii war nañ ko noppee noppee ni léegi le temps que ñu lancer chemin de fer parce que balaa nga nan naam kat da fay ne voilà te lolu aussi je pense que comprendre nañ ko état mi ngi taxaw ci côté social bi mais mi ngi taxaw aussi ci côté euh, investissement yi am nañ ci yaakar li ci dess nak dañuy ñaan rek euh, yalla àggali ko ak jàmm salam